population ba attaqué wuñ ko dañ ko daal di nuyu bàyyi ko mu wax li muy wax su mu jugee jàll dem feneen donc euh, fépp euh, candidat ak coalition di jaal wala sax ñi nga xam ne ñoo leen di campagnal je pense bien que nga xamante ni seeni adversaire ñoo fa daal di war ngeen euh, mën a euh, saafonte rek ku ci nekk euh, wax la muy wax et ñu jàll te je pense que y même une pacte un de non agression bi nga xamante ne ñi nekk ci opposition bi signé nañ ko rawatina ña nekkoon ci biir coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñëpp signé nañ pacte de non agression boobu maanaam ñoom seeni coalition seeni ñoom ñi nga xam ne ñoom nekkoon ci Yewwi Askan Wi suñu mbëkkante du am benn scène de violence ci jàmm ak salaam ku ci nekk nuyu comme li xew diggante démb euh, waa PUR ak ñi nga xam ne ñu waa Diomaye président mëkkante nañ ca euh, Pikine waaye nag foofu amul benn heure amul scène de violence amul dara ku ci nekk danga nuyu sa moroom rek jàll ci leneen donc lool la ñuy bëgg a gis ndax comme li mu nekk waxee doole fajul dara xët xët fajul dara ay idées yu baax ak. proposition de programme bu baax moom mooy faj dara ndax ci la askan wi di mën di tënku di sukkandiku xam ne kii lu mu ñuy euh, baax na euh, moo taxit ñu daal di lay euh, votel donc ça ne sert absolument à rien ngeen ñuy dóorante jaase ak xañante xeer te ay woto loolu moom day tax sax ba ngeen baal ma askan wi di leen daal di jippi donc di quand même ab di woote un peu plus à la à la retenue quand même un plus de responsabilité ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ci coalition yeeg mouvement affilié yi nga xam ne jamono ji ñoom ñu nekk sur le terrain di amal li nga xamante ne moom moo di campagne bi loolu ci euh, c'était juste une waaye nag munuñu ñàkk bien sûr euh, ndokkalewaat euh, sunu mbokk yi nga xamante ne dañuy euh, soog um ko dugg ci ramadan bi ci jàmm sunu borom def ñaan yëpp yi nga xamante ni dañ ko ci def durant quand même cette période mu mën a mu mën a àgg ci borom bi ba wasaare fi jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj ci élection yi nga xamante ne mbëbëj nañ ko ci réew mi ñu am ko ñu amal ko ci àpp wa nga xamante ne moom lañ ko daal di jàpp mu bañ a am benn toxal ak benn sax teggi wala jéem a jéem ci indi ay ay mbir xam ndax li ñuy dégg jamono ji itam neexul te sax euh, véhicule ko sax c'était comme si que dañ koy daal di parrainer donc un report des élections wala leneen mel moom personnellement man bokk bugguma ko sax dégg ba di ko di ko passé donc euh, yooyu daal nga xamante ni dégg nañ ko ay recours ñu déposé cour suprême mën nañ faa jaaree toxal élections yi yëpp euh, dàkk décret yooyu yëpp vraiment nañ ñu ci nañ ñu ci musal waaye nañ ñu ci jëlee ndax jamono ji moom comme ni ma koy waxee woon rek askan wi sonn nañ ci politique li ñu bëgg mooy élection ñu amal ko ki ñuy tabb ñu tabb ko njiit réew ñu bàyyi ko mu liggéey et puis euh, réew mi mën a dellusiwaat ci euh, ci dal ak euh, jàmm ji nga xamante ne moom lañ ko xame xamee woon politiciens yi xaw ñoo noppal tuuti ndax mën naa wax ça fait parce que deux ans ñoom ñoo ñu colonisé daanaka lu ñuy wax matin midi soir so so so takkewul ci politique sax defaçon façon dana ca dana ca ñëw émission donc c'était juste quand même. Euh, une entrée par rapport à la discussion bi nga xamante ne dañ dinañ ko am ak yéen euh, ci euh, campagne électorale bi nga xamante ne maa ngi leen ko doon wax naan tey ñoo ngi ci ñeenteel fan ndax fàttali leen ne juróom-ñeenti fan ci weeru mars lañ ko daal di door ah le la campagne bi commencé waaye acteur yu ci bari nag ñoom daanaka ci weekendu dibeer gi ci dimanche beeg altine ji démb ji la ñuy tàmbalee wër maa ngi leen ko doon wax sànq ne ku ci mel ni Khalifa Sall moom moo nga woon Tëngéej laata loolu moo nga woon waaye itam ah, euh, ne woon na ci yenn artères yi euh, mel ni Colobane HLM mag yooyu wër na ko donc yeneen candidat itam jëmel ni waa PUR Aliou Mamadou Dia bi nga xam ne mooy seen candidat moom ni ki démb mu ngi woon ca Pikine ah, yëkkati na fay ay kàddu yu am solo wax na itam lan mooy euh, gis-gisam ci réew mi waaye itam ndaw ñi nga xamante ne jamono ji jàpp na ne ñu sokkale réew mi te jox ñu leen wàllu wa wa am donc euh, loolu la waa candidat bu pur bi xalaat Anta mu ngoom mi nga xam ne moom itam gone la ci biir gone yi euh, gone la ci biir mag yi su mun naa woowee noonu moom itam euh, mu ngi laaj askan wi ana ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénkoon alalu réew mi te defaruñ leen dara moom mi nga xamante ne ci alalu yi boppam la jàppale askan wi wàccee fa ay entreprise yoo xamante ne ay junni junni ndaw ay junni junni sénégalais dañ fa liggéey di daan seen doole di yóbbu seen kër donc ko mel ni moom itam euh, dénk ko réew mi du euh, du nekk loo xamante ne c'est c'est immérité ndax moom ci wàllum moom kese moo ngi liggéeyal réew mi loo xamante ne daal ñu ci bari ñoo ngi ciy gis seen bopp ñu ngi ciy jëriñoo itam ku ci mel ni Khalifa Ababacar Sall moom gis na ne mbay meek napp gi euh, lu ñu war a mën a defaraat la lu ñu war a mën a suqali la ndax loolu bokk na ci li nga xam ne itam moom mën a yërëb réew ni ki démb xamal na ko waa diwaanu Tivaouane Peulh jàpp euh, waa Rufisque fa nga xamante ne foofu la euh, nekkoon waxtaan ak ñoom ci euh, programme bi nga xamante ne da ko dippee l'humain l'eau et la terre jël nit teg ko ci kanam jàpp ne eh, nit daal ku ko cëral def nga def nga lépp waaye itam eh, ndox ak suuf itam eh, ku ko liggéey rek sa dëkk war na war na am na tàngee bu baax a baax waa coalition Diomaye président ñoom ni ki démb ñoom ñi nga xamante ne il faut le dire ils sont quand même amputés de leur candidat ndax kii di Bassirou Diomaye fàttali leen ba léegi ñu moo ngi woon ñu téye ca kaso donc libération bi c'est pas encore à à l'ordre du jour donc dañuy xaar su nekkee libéré nañ ko itam libéré ñu ko itam dana amee dana amee gàllankoor bu baax a baax mais ñoom am nañ heureusement je peux dire am nañ deux candidats de leur côté ndax Cheikh Tidiane Dieye ak ki nga ne moo di euh, Habib Sy ci seen coalition boobu lañ bokk donc ñoom ñoo ngi battre campagne pour ki nga xamante ne moom moo di euh, Diomaye di tànneefu Ousmane Sonko di seen tànneef ñoom ba tax ñu sóobu ci moom ci euh, campagne bi premier ministre Amadou Ba di candidat Benno Bokk Yaakaar moom. ma nga woon démb ca Mbàkke doon fa amal ab euh, mitin ginnaaw bi nga xamante ne d'accord na ko ca euh, ba muy door niki démb nag jot na faa dem wax ak ñoom waaye itam wax na ci ndox ma nga xamante ne jamono ji sonal na leen lool moo ndox mu sell set te neex euh, diwaanu Touba ak Mbàkke ak la wër moom am nañ cee jafe-jafe lool moom ci kàddoom wax na ne dana ci indi ay saafara la ko gën la ca gën a mooy mu daal di irriguer ndox mi nga xamante xamante moom mooy jóge la daguère te nga xam ne jamono ji nag moom mooy euh, arrosé Dakar ak euh, région ji ko ñu def lépp ba mu àgg foofu noonu ca Touba ngir ñu mën a amee ñoom itam ndox mu neex waaye itam modernisation des daara ak euh, lana mel moom nee na daan ci def lam ci mën ngir itam njàng moom nga xam ne njàngoom alxuraan la rek mu mën a am place bu baax ci biir réew mi ku ci mel ni sa Seck moom itam ci. ba muy euh, wax ak euh, sénégalais jàpp na ni itam assemblée nationale bokk na jamono ji li jër coow yi ci réew mi gis na ne war na caa mën a indi ay euh, ay ay coppite defaraat ko bu baax a baax wàññi itam li mu député gi ndax jàpp na ne ñoom assemblée itam la ñuy jël ci budget bari na lool waaye itam liggéey bi nga xamante ne dañ lañ koy sant daanaka sax la ca bari dañ koy laal ci wàllum politique waaye nag du liggéeyal askan wi donc moom jàpp na ne itam ñu soppiwaat assemblée ak na muy doxee nekk na ci réew mi Déthié Fall ak programme am Sénégal bon naa voir et bon à vivre comme na mu ko waxee moom itam mu nga woon ca Saalum yëkkati fa ay kàddu euh, ci développement ba nga xamante ne euh, am na fa waaye itam nan la ñuy gën a def ngir rek mu gën a sokkale ko bu baax a baax ba mel méngoog taax yu kaw yi nga xamante ne euh, nekk na ci Ndakaaru ndax moom jàpp na ne daal développement moom warul nekk rek ci benn diwaan waaye dañ ko war a gën a décentraliser loolu mooy entre autres ñi nga xamante ne jot nañ gis seen i seen ki nga xam moo di Serigne Mboup moom jot naa dem seeti commerçant yi nekkoon ca marché Sandaga itam euh, def na fa ay ay dige yu am solo dafa mel ni nag campagne bi campagne yu dige la ak euh, def ay euh, def ay def ay promesse comme on dit en français donc loolu daal la jot a nemmee ko gum ci li nga xamante ne moom fu jot am diggante le acteurs il faut aussi dire que ne am na candidat yoo xamante ne itam seen i seen communication àggagut ci ñun xam naa rek dañuy taaxeerlu ba xam euh, dañuy taaxeerlu ba xam ko ci mel ni Boubacar Camara itam comme je di dit rek euh, ay ay ay élément am àggagul ci ñun ñi nga xamante ni itam euh, ñoom ñooy yore communication Pape Djibril Fall dañ leen di soññaat vraiment ñuy gën di wasaare li nga xamante ni moo di seen euh, seen plan de de de campagne ngir taskatu xibaar yi mën a dem ca ñoom ndax euh, yow soo wootewul nit ñi du ñu mën a dem tamit comme ni ñu ko waxee métier taskatu xibaar surtout ci jamonoy campagne dafa dal di dafa daal di doy waar ndax dañuy wax naan il faut quand même équilibrer les donc campagne le diw wala soo ànd ak diw war nga ànd ak ka ci des soo ko deful nag c'était comme si que kooku noonu ngay àndal matin midi soir moom nga daal di faral donc c'est pour cela qu'on invite vraiment tous ne jamono ji ñoom ñooy campagne ak ñiy ànd ak ñoom fekkee seen i débat yooyu euh, di leen yombal aussi liggéey bi ndax su fekkee da ngay woo nit ki bi itam su naree ñëw doo ko teg ci condition doo ko jox woto bi nga xam ne moom lay toppee